cest diir dire man euh, képp ku naw yaayam ku bëgg yaayam dama lay bëgg automatiquement parce que man dama gëm ne euh, africain euh, li yàlla def ci ñun yëpp ci valeur benn mhm. valeur bi ci gën a fondamental mooy attachement mhm. bi ngay am sa yaay sa yaay koo ci gis ñun mu ne la sam sax am nañu relation boobu ba may tàggu fii naan ma bul fàtte ne dama bëgg ñu suul ma sama wetu yaay fuuta gaajoobe ma ne ko non loolu xamoon naa ko ah ma ne ko c'est dommage yow du ñu nekk ci même cimetière bi maak yow mu ne ma lu tax ma ko sama yaay Dakar lañ ko suul yow mu ne ma ah oui moom amu ci woon benn problème il a tout suite comprendre li may wax. Mm. cest di ñun dañu bëgg suñu yaay. fam fu ñu jaar ak ñun euh, moo tax dama bëgg loolu laay wax toujours africain bu may def ay conférence mm-hmm. ma ne amour boobu ngeen am pour seen yaay bu ngeen ci jëloon même dix pour cent wala vingt pour cent jagleel ko seen jabar mm-hmm. seen doomu jigéen ñi seen collègue de travail yi wane un immense respect pour les femmes fu ngeen mënti dem mhm. même bu dee sax amu leen ay théorie politique ak ay genre ak yooyu mais juste rek munoo ne sama yaay moo gën ci mbindee fi ma xam ba pare ngay toroxal jigéen parce que jigéen boobu tam yaayu yaayu yaayu jàmbur la wala yaay potentiel la un jour mhm. euh, l'amour maternel daal war nañu éduquer te man dama seetlu daal suñu yaay yi mm. ñoom ñooy vrai leader kër yi suñu kër yi boole ci nag loo wax mu ne laajal sa papa. Mhm. man maa ngi sa ginnaaw papa sa kàddu papa la kii lay xaar sa humilité boobu. Mhm. yàlla jigéen rek la ko may. jigéen ñi dañ ñoo gën ci lu bare ñun góor ñi xam nga. parce que waxaatal loolu. non dañoo gën ci lu bare <laughs> di ñu jox ay leçon guddeeg bëccëg et puis leçon de leadership. leadership day ànd ak humilité day ànd ak modestie. Euh, ko foo koo gis fi Sénégal. Mhm. li muy tiitaroo mooy soxna bu baax bi ko jur. dëgg la ah boo déggee Adja euh, soxna Fawad Wele Kodda euh, euh, Adama Aïssé Adama Aïssé Thiam bu El Hadj Oumar Foutiyou Maam Jaara Bousso voilà ñoom ñëpp nekk nag ñoom ñëpp nekk suñu suñu ay maam mhm. ñun ñu bëgg leen te xamuñu leen ndax liñ ñu may may ñu Cheikh Oumar yu may ñu Maodo Malick may ñu Cheikh mhm. Khadim Rasoul boo xoolee loolu da ngay da ngay xam ne mhm. jigéen joué na bu mag ci Sénégal ay femmes leaders lañu c'est des saintes et ñooñu ñoo tax suñu réew am configuration bi mu am moo tax daal ma ne góor ñi Sénégal bu ñu mënul comprendre mm. ne développement Sénégal euh, retrouver suñu ay valeurs bu ñu bëggee dem ci direction boobu mm-hmm. ku nekk na xoolaat diggante ak yaayam ni nga nawee sa yaay ni nga bëggee sa yaay wan ko jigéenu Sénégal yëpp. loolu solo c'est important très très important. Mhm. man bu ma déggee violence góor bu am violence jëmale ko ci jigéen sama xol day jeex dama koy yërëm moom ci boppam parce que dama naan lii naka la ko mën dalee yaay c'est pour l'amour total.